di ñaan ngeen abonné te bés la ajëkk bi waaye ngeen bés kolos de notification bi ci wet gi mooy waral vidéo bu yaay doon ki koy njëkk jot bu leen fàtte te aimé loolu it dinañu dooleel lool ci liggéey bi bu leen fàtte nag sponsor xbet won xbet code promo AXI 707 474 boo gañee ba pare nag nga am bonus bu toll ci 65000 francs sa première dépôt loo ca mën a dugal nu mu mën a toll waa xbet dinañu la may bonus bu rek moo ko man kon nag abonné leen ngir di am yeneen sponsor yu mag waaye nag bu leen fàtte it di ndax kat loolee baax na ci lool fii la ci réewum Sénégal nag la koy doori di yéene kaay ñëw na it li lii la di liga centenaire bi tey ji lay commencé Séville ak Osasuna te na métti lool nag journal bi ñëw na ci Ismaïla Sarr mi bu ñu ko ñaan tuuti rek mën na am club bu baax baax bu gën ci moom keroog nag bu mag la dugal moom ki la di Ismaïla Sarr dañu wutale nag groupe Futurs Médias record yéen kaay la ñëw ñëw na ci ka nga xamante ni moom moo di Kalidou Koulibaly du doomu Sénégal nekk foofu nga xamante ci ni moom moo di Chelsea moom nag yàggu fa waaye nag mën nañoo wax ne moom place moom kenn du ko pouvez te biir moom doomu Sénégal bi la di Kalidou Koulibaly waaye nag journal bi ñëw nañ ci Cheikh Ahmadou Bamba Dieng comme ni ma leen ko waxee woon démb ca guddi rek club yu nañ ngir dal di bëgg doomu Sénégal bi la di Bamba Dieng waxtaan na nag ma ngi commencé door waaye nag ñeenti club ñoo ñëw waaye nag li gën a wér te wër moo moom club boo xamante ni offre ba nga génne baax na rek mën nañu ne Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom yaay club ba ko ca moom ndax ka dafa mel ni club yi ñëw am na ay Angleterre waa Allemagne ñëw nañ ñi la it di ñëw nañ muy Nice waaye nag li gën a wér te wër moo di waa West Ham ñoom nee nañ dañoo bëgg doomu Sénégal bi la di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moo tax nag xeex bu métti lay ne daal bëgg nga ko sub offre ci la ñuy xoolee fan nga bëgg sa mbir ci ki la di Cheikh Ahmadou Bamba nag buy dugal la loolu nag moo waral club yi xam ne gone gi taarix football mi ngi moom waaye nag dañoo wutali Rémi Coty ñett sport comme ni ma leen ko waxee woon rek Alexandre Cissé mi rapport ndox Dieng maanaam wutali na foofee ca biir Marseille kële bu Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ak Pape Alassane Gueye li gën a wér te moo di dalal nañu ko defe ne premier entraînement am foofee ca Marseille di waajal li nga xamante ci ni moom moo di championnat bu France ak ni moom moo di Ligue des champions bi moom moom moo di Alexis Sanchez moom nag dafa dagg contrat bi mu amoon diggante Inter de Milan ak moom waaye nag agent mit ànd ko ca la mu ngir ñu wutali fi nga xamante ci ni moom moo di Marseille moom nag wutali na club boo xamante ci ni dem nañu Ligue des champions te ñoom li leen yëtteel ci Ligue des champions moo di nu mu a kanam tuuti rek mën nañu wax ne am na ay club yoo xamante ci ni ñëw nañ pour dal di bëgg doomu Sénégal bi la di Bamba Dieng waxtaanoo nag commencé na commencé naa door nag ci diggante Bamba Dieng ak Marseille waaye nag ak yeneen club yi bëgg doomu Sénégal bi la di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng dañuy wutale nekk sunu làmb dafa ñëw ci gile di Balla Gaye numéro 2 moom mi nga xamante ci ne nag moo dal di daan tiitaru Fass ñu gën koo xam ci Gris Bordeaux làmb jooju nag la setu ut la woon kon nag Balla Gaye mujj na amaan lam ci kaw

Fall combat boobu nag na ko ñëpp xaar ndax kat dina nekk laa mu jodey moom Gris Bordeaux noonu darañu xaar ba xam day tekki ay ndommal tànkam ci bëri wala it day continuer di bëri lépp lu ci mos a seen nag sunu làmb danañu ko yëgal te bu ñu ko yëgalee da ngeen ci jot ndax kat le monde sport monde bi lañu fi nekkal dina ngeen defa dañuy wutali nag Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kaay dafa ñëw nag ci waa Real Madrid ci gannaaw bi nu jëlee li nga xamante ni moom moo di super coupe UEFA moom ki la nag di Karim Moustapha Benzema jiital na Raoul mi nga xamante ni moo amoon 323 but nekk deuxième meilleur buteur de Real Madrid Cristiano Ronaldo moo nekk ca première place ba kon nag ki la di na la di nekk ci deuxième place ba kon nag Benzema mi bu desenee ca Real Madrid ca ay at ci kanam nekk meilleur buteur foofee ci biir Real Madrid bi ñëw na xamante ni moom moo di Marc Marcos Alonso ak Bernardo Silva dëggal na ne nag Juan Laporta di Paris Saint-Germain Barcelone ba na a boucler seen dossier yi nga xamante ni ñoo ñëwoon muy joueur yu bees ci Liga Santander ba waaye li mu bëgg mooy ne nag balaa lijjanti ñooñee mu gaaw dal di profité ci kilé di Marcos Alonso ak Bernardo Silva ndax kan mën a asuté waat ñoom ñëpp ndax ma ngay ma ngay gën a wut buntu ngir a asuté lu toll ci dafa mel ne nag Bernardo Silva ak Marcos Alonso dañuy wutale nag as yéene kaay dafa ñëw nag ci waa Real Madrid ak Barcelone Real Betis Atlético de Madrid waaye nag ñëw ci Valence Seville ñoom nag ñi ngi wàcc lile di Liga Santander bi te tey ji njëkk war a am war a dox ci Seville ak Osasuna match bi waaye nag li gën a wërte moom journal bi nee ku baa nga noonee de ñun ñëpp Espagne la dëkk waaye nag club bokkuñu kon nag dina métti lool ci Real Madrid moo xam Barcelone la Madrid Real Betis Real Sociedad Valence club yëpp nag benn club du ci maye dara ndax kat loolee dina métti loolu ci diggante club yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci championnat bu Espagne soxnaal bi dëggal na ne Marcos Alonso ak Bernardo Silva ña ngay wéy di gën a jege foofu te biir Barcelona waaye na soxnaal bi nee na Robert Lewandowski moom ak sulkunde Franck Kessié Christensen ak ki nga xamante ne moom moo di Rafinha ba tey jii Juan Laporta di président ba ma ngay wax ngir ñu a kat participer ci li di Liga Santander bi dañuy wutale nag ki nga xamante ne moom moo di Mundo Deportivo ñëw na it ci li nga xamante ni moom la waa Barcelone di nas ngir kat jéego yu ñu bëgg jamono ji mooy wut ay défenseurs yu fiable comme ni ñu ko wutee ci Jules Koundé Christensen waaye nag latéral bi nga xamante ne moom la ñu bëgg muy kële di Marcos Alonso nekk foofu ci biir Chelsea te mu gone gi nag waa Chelsea xamal nañu ko ne da nga fiy jóge moom it xamal na leen ne dama fi bëgg a jóge ba loolee lépp waxtaan nañu ca ba mu yemb gone gi nag kon dina resondor ji Barcelone li ci des nag moom moo de Barcelone ci boppam moo bëgg a jël mën nañu de lu toll ci quatre-vingt-dix ngir mën a am ñaari joueur mën nañu ne kat kii di Bernardo Silva mën na koo jënd lu toll ci quatre-vingt kii di Marcos Alonso dix ba jëm quinze waaye it ba jàpp sax vingt millions loolee nag Loxmaan Laporta a am Marcos Alonso ak Bernardo Silva te sport yi dëggal na ko kii di Mundo defoo jaar ca Marca ñëw AS yéen kaay dëggal ko kon xam na ne Barcelone mi ngi ci prochaine yu baax a baax. ngir am mercato bu rëy rëy wuutale nag sport comme ni mu ñëwee rek ci kilé di nga xamante ci moom moo di Franck di Jong tàggatoo lañ nar a gis wala nag ak resté fa ca biir Barcelone waaye nag ba tey dara leeragut ndax kat date ba ñu joxoon ci kilé di Franck de Jong jotagut muy la 31 la 31 nag fu mu jotee ñëpp dinañu xam doomu pays baa doomu Hollande bi ban club lay rejoindre ji ba xam day ànd ak waa Barcelone liggéey ca Ligue des Champions ba ak ca Liga Santander ba ba dafay bàyyi Barcelone wutali Manchester United wala Chelsea wala Manchester City waaye nag dara ban club la jëm waaye nag bépp xibaar bu ci rosonni rek ci xibaar Le Monde Sportif du ko fàtte te dana ko joxe journal bi dëggal na ne liggéey Liga Santander bi tey lay commencé match bu njëkk si fi la koy amal danañu xam ne kan mooy yenu coupe bi 2021 jàpp 2022 Real Madrid moo ko dal di jël waaye nag déwén dinañu gis club yoo xamante ni def nañu mercato bu baax a baax nañ nañ te ñoom it am nañu yaakaar ci seen bopp dañuy wutale ngir kat xamle ñoom ñi li waa italien ñi li waa Juve seen supporters yi soxla lool li nga xamante ni moom moo di ligue des champions bi rawatina championnat Italie tabee daal waaye Juventus jëluñu benn trophée loolee nag métti woon lool supporters yi waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa supporters ñoom nee nañu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax kon nag dañuy jóge Corriere dello Sport wutali Torino fekk fa Tutto Sport moom nag dafa ñëw rek ci kustik ci lépp yem na quitté na Francfort dal di wutali fële nga xamante ni moom moo di Juventus moom nag dafa mel ni ndaanaan la te waa Juventus bëgg nañu ko loole nag moo waral lépp dal di yem journal bi dëggal na mbirum Cristiano Ronaldo ba tey jii day gën a métti ak waa Manchester United comme Rooney ni ma leen ko waxee woon

la Gazzetta dello Sport moom nag ñëw na yëg ci championnat bi Italie moom it léegi rek mu commencé waaye nag li gën a wér wër mooy ñoom ñëpp def nañu recruter Napoli Italie waaye nag Inter de Milan match Italie Juventus it match Italie AC Milan match Italie waaye nag Torino it match Italie waaye nag li gën a wér wër moo di ñoom waa AC Milan ñoom nee nañu nañu ko jëlee woon daaw. atum 2021 nañu ko bëggee jël 2022 2023 waaye nag Juventus nee na du ma la ko may ñi di waa Torino nanguwuñu ko Napoli nee na nanguwuñu ko kon nag dañu leen di jox dig daje ba ci kanam tuuti ak beneen xibaar bu tàng jër waaye nag abonné leen nga bës cloche de notification bi ngir di am ay xibaar yu wér te wóor abonné fu activé la cloche de notification